asalaamaaleykum ñu ngi nuyu képp ku ñuy suivre fii ci Bawol TV ah, tey nag nee naa leen ci euh, ba tey rek ci làmb ji ñu ngi fii ci immeuble Kébé seet si naan xale bi nga xamante ne yaram bi dafa màndi bëre muy lutte lutte simple muy lutte avec frappe kooku nag mooy Bébé Diène ñu ngi ci immeuble Kébé fi nga xamante ne mooy Elite Fitness lañ ko fekk fii ci mbër yi ñoo sob fu ne la ñuy dugg ma ànd seeg Alsaan sama caméraman bu ñaawul bi as ñaari tur Alsaan ans léegi dañuy dem dugg ci biir salle bi alsaan ñu xool euh, bébé Diène ak coach sami nan lañ koy coacher mouvement yeex yooyu ndax da ciy am solo moom ak fourrière la la kenn du ko fàtte samedi incha allah le 14 xam naa ne stade bi dina yëngu dina neex ndax ñaari xale yi am ginnaaw lañ léegi nag may topp ñu dem xool mbër bi. mission bi dóor waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar jàll mission de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la mission de jaar jàll jom ak fit mooy taxa doom bi jàll jóg teel takku fajaru teel jóg sama xel faat ngërëm laay defaat fu ma tollu suba laay fexeel xeex ko tey mu mat xewul du amaat nëbb sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni mes yëpp misaal la amee góor yaay war a fay baay mun ma leen dab gaa mais jàmm na def ci dëggaa amul benn ragal dinaa leen dëggal ak alal bu lew sama cofeel di law bëgg naa fond de famille bu ma amee àq comme ñaan naa mu ami comme laa war a nàq seet si xel ak sa taaf yaram bi mu yore di doore bismillahi lay doore ñu fental suma jant ma toll di sant mooy fenkal suma jant fu ma toll di sant jóg door waar moo ma waar fóot bay mun di muñ lu rot mun gëtu mbaa gàtt jublu rek maay gàtt see wala maa gàtt ñu ngi nii maay gàtt yow tam loolu laa la gëm loo taman moomee jàmloo gis nga boo sabat loo dara jommul la fiiloo nguur bi di la natoo jafandul rek doo bés bu la gëstoo nga neex a tiitloo liggéey yu yaay du alal bu bëree na a ragal seytaan mun na la baddil mais buur bi su lay abal bëgg nga jub kocc day mel ni ku lay kocc day mel ni ku lay xocc pour ba nga wan ak bu mag bi muy Bébé Diène dama koy bàyyi rek mu nuyoog àdduna ak fansam yi ak ñi koy bégee di ko supporter mu wax leen nag liy xew 14 le 14 incha allah fee ci arène nationale mu wax leen mobilisation bi nan lay demee ak lan mooy xew ci diggante moom ak Fourrière nee naa leen du yomb ndax ñaari xale yu am ginnaaw la ñaari xale yu amateurs yi bëgg Bébé maa ngi lay nuy déjà. waaw maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari ñaanal yàlla sama papa yàlla ko yàlla yërëm xaree ko àjjana ak bépp papa bu mu fekk ak képp ku dem yàlla may ñu gudd fan bàyyi fi sama yaay bépp yaay jàmbur ah. waaw di nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax di nuyu sama gaay mu toogal ni ñoom Ibu Kosu waaw ak ñoom tubaab Ibu Boy Refan ak Laay waaw di nuyu sama papa Abdou di nuyu ñoom Momona di nuyu ñoom Bas man di leen nuyu yéen tamit waaw di waaw di leen nuyu. di nuyu Baol TV bu baax waaw sama télé papa la. Uh-huh. ñu ñëw fekk la Elite Fitness ngay liggéey liggéey bu am solo ak sa coach si mun nañ xam depuis kañ nga commencé di traîner fii combat bee la fi indi wala yàgg nga fi ñëw. non ñii moom xam nañ ma ku si ni ñoom Ibou ak ko su waaw ñooñu xam nañ ma quoi bu may nekk booy ba léegi waaw maa fi ñëw ñuy ànd di liggéey waaw. bu dara doonul dara tamit ah, ba léegi nii Ibou muy nii du ma bàyyi ma fenn waaw. Bébé Diène comme que ñu ngi soog a toog tey jii nii dama bëgg nga wax euh, ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan kan mooy Bébé waaw Bébé Diène benn boy rek bu juddoo maintenant rue 5 angle corniche waaw du màgg foofu gis sama papa Mbaye Diouf di bëre te samay gars dañuy dund làmb ku si mel ni Mamadou Birke maa koy yàlla ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yërëm waaw. su mel ni ñoom paa bu ndaw xam nga ñoo ma doon tegal ay mille francs ay deux mille su mel ni ñoom bas waaw. Bébé Diène mën nañ xam lan moo la dugal ci bëri ban mbër nga euh, gis muy bëri mu neex la ba tax nga dugg ci wala bëri dafa nekk ci yow ba tax nga dugg ci bëri. waaw làmb moom daanaka man Mbaye Diouf bu ko mambal la daanee si laa siisoo ne man damay nekk mbër ko waaw boo xam ne maa si tummikaay jooy nii noo rekil wala mambal la la top 5 waaw. dala métti woon. waaw ma métti woon waaw. lan moo taxoon mu métti da nga bëggoon Mbaye Diouf de trop wala. waaw dama ko bëggoon xam suñu koñ la dëkkoon. mu nekk booy jour boo da doon bëre ma dem. waaw bëgg ko lool may ñu daan ko may jooy. ne man damay nekk mbër après si la ma sama benn grand sidi yóbbu ma écrit sama papa Kayre. te ba léegi ne dañ ma xam ma papa Kayre moom dafa sonn si làmb ji barke Serigne Touba chaque jour day taal otoom ba Kër Ndiaye loo ñëw écrit ba. li ma entraîné. boole ma comme doomam écurie ba yëpp laa wax ni ñëpp da leen téye seen doom di leen nuyu bu baax ku si mel ni ñoom sama turandoo jéen am nañ trois combats semaine bi si mel ni Manick sama copain poste courant leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla may ndam waaw. nga nekk champion bu nit ñëpp ràññee ci lutte simple bi en plus lutte frappe bi tamit yaakaar naa wane nga ci say bopp tey mun nañ xam ñaata combat bi bi jéen am ci arène bi. waaw am na wit combats waaw. am naa six victoires waaw. ci trois défaites. waaw non non deux. deux défaites waaw sama premier combat Ousmane Gandigal. ah six victoires deux défaites. waaw kan lay daan da boobu da nga nekkoon xale fukk yóbbu la maanaam da ngaa fooy sa combat wala da laa mën. xam nga man mën naa laa dëkk te suuru combat woo dama gis ñoo xamante ne ay mag lañu ñëw di ma supporter ay xale di sonn si man xam waaw man aw ma aw ma lu may aw lu may taxaw lu may ragal yàlla moo dogaloon noonu rek dinaa daan liggéey nga li nga war a liggéey. naa lu ma war a liggéey barki sëñ Fallou. waaw yàlla moo ma xañ te man sportif laa damay nangu waaw daan nañ ma ba léegi nag yàlla mu may may ay ndam man xale bu ndaw laa waaw 99 ba léegi xam xale bu ndaw laa sama moroom yi ba daanaka ba réew ñu arène sax kon man su ma amee lii damay sant yàlla bu baax waaw. xam ne mënuma dara di ñaanal yàlla xam na waa naa ñoom ñëpp nañu ñëw jàppale seen doom di nuyu mag xale ndaw ñëpp billaay fu ñu tourné saa booy ñuy pare waaw. mën nañ xam mbër yi nga xamante ne ñoo wu ci lutte simple bi comme yow ngeen fës ci lool seen combat dafay jafe arène mën nañ xam lan mooy problème waaw mooy comme gaa nu ñuy def nii rek ñun dañuy dem compétir sama papa Bekaay Mbaye moo doon ne gaa nañ dem compétir xam nga may dem di di di si compétir. balaa sama combat di taxaw day metti torop moo tax ma bàyyi lutte simple bi maa ngi suivre bi di nuyu tam sama mbokk séeréer yëpp ndax am naa fa tamit ay supporters waaw du leen nuyu bu baax. ñu dem ci li nga xamante ne moom lañ dëgmal muy le 14 incha allah fee ci arène nationale sa diggante ak Fourrière tey jii nii euh, nga nekk euh, xale di euh, prouver ba tey ci lutte simple bi mais ren dañ la gis ne da nga jël combat bi au sérieux lutte simple bi moom gisuñ la ci lan moo tax combat bi dafa am fu mu lay yóbbu ba tax nga pose lutte simple bi wala lan moo tax nga arrêté. waaw boo xoolee dañ dañ ma doon utal ay combat muy jafe samay staff ñu toog te xam nga léegi nekkatuma Bébé boo xamante ne day jug rek dem fu ko neex ndax ay nit bu ñuy sonn si yow dañ leen di jox cër. léegi Bébé Diène star. non nekkuma star du ma dara mais dafa am ay mag ñoo xamante ne xam nga nit kese mënul demal sa bopp. ndax man man kese maa doon dem takk bu ne damay dem bëri ji mais dama am staff dama am ay mag waaw buñ ma nee defal nii ma def buñ ma nee lii ma baay te ñu ma doon àndal depuis xale ba léegi ñoom laay àndal waaw ku ñëw nag tamit maay ñaan yàlla ñëpp ñëw mais ñu ma doon àndal ñoom laay àndal képp ku ñëw rek da ngay nekk ak ñoom nekk ak man waaw aw nekkuma star ñaanuma yàlla nekk star xam la laa ñaan yàlla nekk taaliba Serigne Touba am ay xewal di ko séddale ay jaamu yàlla ñu am ak ñu amut di ko yóbbu Touba sama sëriñ sëñ Abdou Karim waaw. Bébé Diène ñu gis na dafa bëgg Gambie trop lan moo xew Gambie lu fa am lu amul Sénégal wala foofu ngay gën a nekkee euh, foofu ngay gën a aisé woo wala lan la Bébé Diène un ñu ne mu nga Gambie. non Gambie moom sama benn gaan soxu musuma dem Gambie waaw moo ma woon ne nañ dem Gambie te bu ma demee footam tam rëccu ma ko di ko ñaanal yàlla jàmm moom moo xam lu mu soxla si xolam yàlla ko yàlla may ndam waaw. waaw kii Gambie dem naa fa. yaay bëre samedi mu waaw moom damay bëre samedi mu bëre dimanche. comprendre seen doomu ndey gi dëgg waaw dëgg la waaw dëgg kay barki Serigne di nuyu waa Gambie yëpp ku si mel ni ñoom ah, sama yaay Adama maa ngi koy baax waaw ku si mel ni ñoom écrit fu ñu nekkoon tur bi laa ñoom building xam ma di leen nuyu ñoom ñëpp waaw ku si mel ni Kunta ñu ngi koy nuyu bu baax waaw. waaw ñoom ñëpp waa bi yëpp ñu maa leen di nuyu du leen ziar du leen bëggee ñu may ñaanal ndam waaw. tey ngay daje xale bu doy waar xale bu mën a bëre mën nañ ne tey da ngeen a tolloo seen bëre booy xool xaw na nuroo du risque ci yow ndax man bëri naa mbër façon mbër bu ne waaw parce que bëri naa façon mbër bu ne ñuy coow si làmb ji yëpp bëri naa ñoom daan leen waaw kon kii jaaxaluma naa ko jox waaw ndax mbër la champion la. te maa koy nuyu tamit bu baax di ko ñaanal yàlla jàmm ba jour combat bi yàlla may ma ndax ndax ñëpp ko yóbbul avance mu daw moom moo ko jël maa koy remercier bu baax sama wëllëre la jox naa ko cër waaw dama ko fonk non baabu ma ko jour làmb ji ngay xam ne ni baabu lu ñu waroon yëpp yëpp wax nañ ko waaw sama papa Samba maa koy nuyu bu baax billaa wallaahi damay dem këram lépp moo koy def waaw jox ma ay xar jox ma lépp barki démb rek laa fa jógee bu ma jógee sama sëriñ sëñ Abdou Karim si mel ni sama pël Fuuta yi naan huraadama moom fop kala wondo pël Fuuta nan torona on on dowa anka pël Fuuta aw aw mi naan hurama torona ala alla alla mi nan torona ɗam dowa allah okkoran ndam lan le 14 aɗon supporte ɗon lan moƴƴanon yeey so melni sam papa diawa ba maa koy nuyu bu baax waaw sama mel ni sama mbokk séeréer maa di nuyu père Guirane xam ma xam ma tamit ñu lay ñaanal waaw ak ñuy sonn si yow tami ñu nga di nuyu dafa baax waaw. kon ne waaw sama papa ñoom ñëpp képp kuy ñaanal Bébé Diène rek maa lay nuyu di la ziar. kono nanirɗo oh, kala haalowo pular beɓe jeen ini o mo torade duwa guine maali leeluma sagale Conakry kala ko pullo fouta woni rek woni e o mo torade duwa torono ɗomo samedi mi liɓa eyi o liɓa kanko haali ko haalama ko wona haala mi ɓay komi ɓe kula sahinan hiroaɓe ɓe kula ɓen foof eyi ɓe popodara fof ɓe ara ɓe waɗa wonɗo dakar gambi kala ko pullo fouta dereɗo pullo fouta won toon hinan ƴiƴan ƴiƴan wona dereɗde <laughs> wa ƴiƴan pullo fouta ko woni wo hinan hiroaɗema waaw fépp tamit sama mbokk séeréer fu ñu nekk rek maa leen di nuyu di leen bëggee waaw ak bool bool yi waaw waaw bool bool yi ku si mel ni sama yaay say waaw sama maam Ndey faat maa koy nuyu baax ku si mel ni ñoom Modou Mamour waaw maa leen di nuyu bu baax borom Italie waaw maa leen di nuyu bu baax waaw ku si mel ni ñoom Isma ñoom Baye ñoom ñëpp dañ siy jàpp waaw ku si mel ni xam nga ñoom Buuna waaw ñoom Mbacke waaw maa leen di nuyu. Mhm. Mhm. lan moo xew arène nationale. yaa ak euh, Fourrière ku dàq bëre. ma dàq bëre ma dàq xeex maa ëpp fit maa ëpp lépp. waa Leewtoo bi duñ dem Leewtoo bi yàgg. non du yàgg ay xale lañu moom xale na. est-ce que doo liggéey naa ah. moom liggéey na liggéey naa. jour làmb dañ koy neexal rek. waaw xam na ni xam ma. seen bu yaroo mu ñëw ma daan ko rek bu xawee nii rek. bu déranger yan ko lu ma sama mbokk yi jox rek. waaw mën nañ xam ñaata temps lay combat bi doon ndax ñoom Balla da doon wax ay deux secondes. ku nekk da nga def euh, def sa li nga xamante ne loolu lay supporter yi di xaar ci yow te mën nañ xam Bébé Diène Fourrière ñaata temps la. non doo am une minute moom. waaw doo am une minute. boo ñëwee mu téye boppam nag. bu téye boppam man damay dem jëli lu ma moom moom nee ndiis bi ndiisam la man dama koy coppati andil ko waa am it na coppati andil ko waaw coppati Samba naa. waaw mafia is boobu. coppati Samba dama koy coppati rek. Euh, ci jongante bi nga topp ko tuus tuus yu dul jeex moom it mu jóg ne la ak yooyu tuus lan nga koy leeral la ci tuus boobu. waaw tuus bi rek. non non tuus mooy saa yi wax yooyu ngeen génne ay tuus. tuus waaw sama ko génnee rek si mel ma waaw moo ko génnee tuus. mooy seen slogan moom moom du dara moom nit la comme comme nit laa rek. moom du dara du tuus waaw waaw champion la mais moom du tuus sama kanam waaw day ñëw rek nit la kom ñëpp. tey mën mën nga wax sa combat ak Fourier fan la lay yóbbu. waaw sama combat woon ak Fourier dina ma yóbbu fu sori. te dama ko fonk nag. waaw dama ko fonk su ma paree fi après si la ñuy xam fan laa jëm man. kon su ma ko déggee sa combat ak Fourier da lay relancer. waaw damay relancer waaw. du am. non non juum du am. waa maintenant dañ ma yónni yaa xam te ma. te ma surprise non ñaanuma yàlla am surprise xanaa surprise buy am man maay daan waaw daan ko jël bu rëy bu amul benn werante loolu laa ñaan yàlla nag. tey ngay indi lu làmb ji laaj rek làmb mooma ah, sport la quoi nit yow sa liggéey sa xam ma dañ si am gëm-gëm amoo loo ragal da nga koy jox akam man loolu laa gëm te man damay ñëw bëre damay damay xeex damay def lépp damay. damay jën benn pied la mu ne loolu dëgg la. man gauche droite mun na ub làmb <laughs> waaw benn song saa boo ko assuré mun na ub làmb a bokk jour open man jeudi laay def gannaaw suba incha allah xale da ngeen décider nag. waaw dañoo décider ay xale dañoo war a xam làmb xale dafa neex. waaw. Mhm. mobilisation bi fan la ci Bébé Diène waaw mobilisation maa koy bàyyi ñoom tubaab ak ku si mel ni ñoom Kouthia ñoom Lamine Gassama ñoom Rahman gars dañuy son si man barki Serigne Touba booy nelawatuñu ki nga kii ni doon tax drapeau ba affaire yi xotti ko kon nga war a xam ne ni man làmb ji dama ko war a fonk. barki Serigne Touba di nuyu xale yu ndaw ñoom laay si waaw mafia déranger yi ñëpp maa leen di mafia yoola maan yëpp maa leen di nuyu. yaa ngi soog a dem ma euh, bëri naa fa man ak Tyson. waxuma mbapat. arène naa fa man ak Tyson gi ngi na daaw yàlla may ma ndam te di ko ñaanal yàlla xam ma ma si continuer ba ba law. mobilisation boobu ak bii. waaw bi. non bii mooy bu soobee yàlla di nuyu waa Medina yëpp di nuyu waa Yëmbal dañ may supporter su mel benn baraag ñoom laay kii nii fa lay jógee weer combat ba léegi muy fii si man di nuyu yaayam bu baax waaw. yaa Fourrière kan la ci sob jëlloo avance bi. ah. yaa Fourrière. waaw kan la bi. moom avance moom njëkkoon nañ ko yóbbul ci combat Papa Sow kii jëlu ko mu jël keneen man ma jël keneen xëy na yàlla loolu la doon dogal. tey jii yow yaa sob jël ko wala moom moo sob jël ko. kan moom som papa Abdou Salam bañ ma woon naa ma som papa Assane Ndiaye wax na ma kii. kii lu tax du tontu li ma koy laaj dama ne. yaa ak Fourrière. kan la ci sob sob jëlloo avance bi non man moom dañ ma jox avance. ma yoonam mu ngi ci làmb ji. wala yoonam nekkul ci. non daa daa moom xam nga lan mooy yoonam ñëw taxaw ma daan ko loolu rek moo. Fourrière ci làmb. waaw yoonam nekkul ci làmb ji la. kon Fourrière moo sob jël avance bi waru ko woon. waaw moo sob jël avance bi di ko ñaanal yàlla jàmm rek ba jour lamba ja waaw waxu mbër. <laughs> fii nii nii nii ci fourrière laa waaw nuyul ma ko boo demee nee ko maa koy bu baax di ko ñaanal yàlla wér gu yaram lépp ba jouru combat bi. samedi ban bu sama gars ne heure tax ko jóg rek maa fo fa. fourrière moo moom nee na fa lay fanaan. waaw man fa la fanaan gis ngeen fi mbër fanaan stade ba taay ñëw ñu duma leen daan leen. waaw loolu. damay añ ba suur naan añ ba suur naan ba mandi bëggeeg samay nit heure bi jot ñu dem. ma jël lu ma moom jox leen ko ñu ñibbisi waat ñu nekkaat lu ñu doon nekk di nuyu mafia iswok ñu nekkaat si sept heures du matin ñoom Badou sama grand Tafa waaw dañ si sonn si man ku si mel ni grand isaa xam ma waaw ñoom ñëpp sama père Khadim di nuyu. mbërum mbapat yi xeex. waaw mënuñu xeex. daa yegg wax de du samay di nuyu borom. waaw dinaa wane yow seetaan nga samay combat. waaw damay xeex damay bëre am na kaaw am na lépp. waaw garaawut quoi sëñ Fallou mbëru mbapat yi mënuñu xeex après la ñuy comprendre daanaka lépp lu ñuy wax mbëru mbapat yi mënuñu xeex te saa bu ñu génnee dañuy ñëw daan man arène laa commencé njëkk commencé te mbapat. yee. samedi yéen dul pousse du paas. du man moom lépp maa koy def. waaw maanaam kon fourrière du pousse du paas du joxe paas. lu ko kii waxaat rek Lamine Samba daa estati na ñëw estati rek waaw ma vi ko romb. maa lay kontaanee. waaw maa lay di góor gën kontaan waaw di nuy autorité Médina yi nag tamit nañ ñëw jàppale ma ku si mel ni sam papa Bamba Fall xam nga ku si mel ni monsieur Cheikh Ba xam nga nañ ñëw jàpp si ku si mel ni ñoom Moussa Faye Sidi Samba xam nga keroog rek ñëw na suñu koñ nee dina jënd billet yëpp waaw Seydou Guèye xam nga maa koy nuyu bu baax Sidi Samba waaw maa leen di nuyu ku si mel ni ñoom vingt sam papa Oumar Anne waa gàll bu bay nekk si kaw xam nga ñoom Cegi ñoom Umar An ñoom Mbay ñoom ñëpp dañu sonn si man surtout maa yaay dëggal tamit ñoom combat bu mu taxawee avant combat bi sax dañ may tibbal chaque jour boolu añ bool bu baax àndil ma chaque jour billaa wallaay maire bi xam ma xam ma xam ma tamit ku lay defal teraanga foo nga delloo ko te koo xamante ni mag la chaque jour day togg yàqal la xam ma billaa wallaay di leen di nuyu kër naari waa kër waaw waaw waaw xëy na man maa leen ko woon te xam ma yàlla baax na surtout maa waa kër Bilal Fall dañuy sonn si man ku si mel ni sama ami d'enfance ñoom Rahman sama benn jigéen échange dafa def soog mariu ma maa koy ñaanal yàlla wér-gu-yaram bu baax te da doon sonn samay combat moo doon organiser wàllum jigéen yëpp waaw ku si mel ni xam nga ñoom sëñ Mor ñoom mataar seen yaay maa leen di nuyu bu baax waaw. yàlla na jékki-jékki rek wér. amin waay amin sama boy joueur yi ñoom Fa Amath comprendre nga waaw ñoom ñëpp maa leen di nuyu waaw. nit waaw dund naa ko xam waaw defet moo baaxul si làmb quoi waaw defet moo baaxul si làmb ak waale mbote Cheikh Babou waalo mbote xam ma Cheikh Babou ñoom laay dañuy génnee yàpp yi xam ma bañ na ko ba ti sorti yi xam ma lu ñu siy def bébé jéen la mbote waaw maa leen di nuy bu baax di nuyu waat Dammees bu ma dëkk tamit waaw bébé jéen la mbote xam nga waaw lembate lembate feenee dañ may dañ may defal jibiteeri bi jibiteeri bi leeral waa xam nga boo nee bébé Diène lembate dañuy jàpp ne waaw ñoom ñoom ñoom xam ma xam ma jibiteeri bi lembate waaw xam naa may lembate léegi buñ may defal ay t-shirt dañ may defal bébé Diène lembate xam nga ni mbote lañ may jox mbote rek xam nga tubaab moom dafa bëgg a mbote añu mbote waaw dañ koy misi yi waaw ñu Ibra Ibrahima Riseng waaw képp ku guddi kan moo may waaw ñëpp. kër Fourrière a kër man maa la wax nga naa ma lool Medina ñu dem <laughs> Rue 5. waaw di nuyu sama ñoom papa Abdou Salam ñoom Bas comprendre nga ñëpp maa di nuyu ñoom buuna waaw waa saal bi fii nii nag aw ma fay ku si mel nii Momsu ko su Ibo ñoom ñëpp dañuy ñëw barki sëñ di nuyu sama grand bi Ndiogu ñoom ñëpp dañ siy jàpp yaa di nuyu waa Medina yëpp waa Pikine sama papa Abdou Salam fu dëkk ñoom Pikine ñoom Abdou Diouf xam ma bàyyi mu si kenn yaa maa ngi nuyu ñëpp waa ku si mel ni Tiwaan Pël sama mbokk yi fa lañ nekk di nuyu sama ñoom nijaay sama maam sama mag yi waa Tiwaan Pël na ñu génn ñëw jàppale seen doom ñaanal ma waaw di nuyu xam ma di nuyu sama papa Samba Ndour du ma ko tere di waxaat combat bi sa combat la ku si mel ni sama papa Diaw Ba combat bi sa combat lañ père Girane Duudu ñaan waa écurie Soumbédioune maa nuyu ñëpp di leen bëggee di leen ziar. xam nga lii site di ñaanal waaw waaw waaw bilaay Baol TV tamit xam nga di leen ñaanal yàlla mu doon ba doon tele lii sama lii papa la Assane Ndiaye daf ma yàgg a jàppale bu may nekk xale ba léegi nag dund naa man ak moom lu ne dégg nañ tamit lu ne te teewul dañuy dégg rek lu baax ñu dugal lu bon ñu jël sànni fële waaw di nuyu sama yaay Seyge bu baax di nuyu ra sama rakk yi ñoom Fallou ñoom papa ñoom day Fatou di nuyu ñëpp. waaw néew fa ah ba sama rakk ji ñaawul di ko ñaanal yàlla xam nga ñu doon lépp lu ñu bëgg rek waaw sofi waa sofi waa maa koy nuyu bu baax waaw di nuyu waa Touba yëpp nag nañ ma ñaanal xam na ni xam ma man maa doon Baye Fall bi buy dem bi andi di di leen jox di jox jaamu yàlla yëpp nañ ma ñaanal jaam non bu ma dàgg xam nga rek ñuy jàppale nit yi tamit foo nga wax si ñoom barki Serigne Touba. waaw léegi def si code. bos ok du nuyu Baye Fall sëñ Abdou Karim bonne journée bonne fête Ibu maa ngi woo ñëpp na le waaw bu ñu daanee ñu dem il ba lem ba te ñëwaat ah waaw Baye Fall yi maa leen di jaale bu baax waaw seen kii ah voilà waaw xam seen ceel ci laalo la Fall am sama benn ami d'enfant moom lañ ko tuddee Abdourahmane Fall fii la dëkk kër Bilal Fall maa leen di jaale ñoom ñëpp xama lii ndogalu yàlla la rek xëy na moom fu mu jëm moom xam na fo foofu moo koy dàqal fu mu jóge fuuf barki sëñ Fallou te moom da doon ñëw suñu kër kër Bilal Fall waaw dadoon ñëw foofu mu ñuy ñaanal barki Serigne Touba xëy na ndogalu yàlla rek mais maa leen di ñaanal ñoom ñëpp waaw di leen jaale tijaan yi murit yi laayeen yi ñoom ñëpp këri diina yëpp waaw ah ba moom sa waaye nañoo jëbal rek sa waay nañoo jëbal rek parce que sa waay li mu liggéey liggéey nañ liggéey nañ ko yéen ñëpp gis ngeen ko parce que bu njëkk ba gars dañ doon dem salle de musculation wane salle de musculation pompé pompé après ah. toog. Ah. Ah. aaral job aaral job bi nii ñu ne la ñu duy la benn cent kilos nga na pousse nga teg ne doole baa nga fa doole ba doole bi fii la kii muy liggéey ni mooy doole. moo tax ngeen wàññi masse. non loolu moo tax parce que rapidité lañ soxla te bu bis baa nag dañu gis nag dañu gis loo xam ne. rek. non nekku question di wax xam nga nit ki fii da ngay gis job yi dañ koy gis job du fen si nekkee de fen wala day simuler di nga xam. waaw mais la lañ wax fourrière oto bu yàqu fourrière lañ koy yóbbu kon garaawul <laughs> moom fourrière lañ koy yóbbu rek ñoom dañ koy yóbbu fourrière non dañ koy yóbbu fourrière rek comme oto bu yàqu dañ lay fourrière bu su bu moom lu kii xeex ñun ñooy xeex ñooy diriger ñooy attaquer ñooy def lépp waaw moom du pousse du passe ñooy ci kaw yëngal si suuf yëngal kër ga nag ñooy eh, la mboote nag reer ba suur nag teg eh, teg ziret eh, bi nag waaw daf koy waaw. waaw di ñaanal sama booy bi rek yàlla mooy kondaam sët guy barki yàlla sama booy la yàgg nañ trop aussi bilaa yow daal ñu ngi lay ñaanal ndam Bébé Diène barki Tuuba sama booy bu baax nga yàgg nañ nag temps booy ba léegi. liggéey na kii moomu njëkk a takkal ngemb boobu dama doon bëri premier combat mbapat ñu def signature sama buntu gàll kër Bilal Fall ma xeexaw waa ji sama yaay ñëw génnee ma kii moo ma lakk këram na barki Serigne Touba ma moo ma ngemb andi mo kon yow ci mbëri nii tamit xam ma saa bu ma ko woowee otom la may yóbbee dindi ya sama grand bu baax la waaw maa koy nuyu à passage di nuyu ñoom eh, Ibrahima. waaw noonu la fa demee rek barke sëñ Bamba booy bu baax la jox ma cër bi. maanaam booy ci mbëri ñi xas naan amuñ kóllëre. non booy bu baax la nit la barke. booy bi du fàtte dem. du wone wu du fat dem. jaaf mbër. xuraan bilaay loolu laa ko fu mu ma fekk yee ma man ma jóg dem barke ar xuraan. doo ko jàppee. jàppee waaw nitu jàpp. tax ko ban geste. xam nga lan moo tax ma jàpp ko. da di nit quoi daa xam aduna xamal ma la day xele nag ba pare yor xelu mag xamal ma la daa ñor booy bi daa ñor. waaw noonu la fa demee nag. billaay ma koy ñaanal ndam billaay fu ma fekk trois heures du matin ñu ñu dem doom day. yor wàllu cumbi. yor ma woon. mais maa yor woon xam nga. waaw maa ko jege tagal ngeen moom mu dem Riseng daan booy bi jël bu rëy ma yóbbuwaat Korobos même sauce barki sëñ Bamba. non ma moom suñu suñu suñu lépp la maa ngi nuyu ñëpp. suñu waa salle bi ah la coach Ibou. xam nga donc kii moom wax dëgg dañu yàgg. bi ñuy bi may nekk bi may nekk booy chaque matinal dama doon dem entraînement kusum donc fa waaw instant yi moom wax dëgg fa ne yàlla maa koy coaché te tiituñ làmb ji moom tiituñ si benn yoon muy liggéey ak moom lu doy waar dama ko doon mere parce que dama ko doon wax ne ko del noppalu ko ndax làmb ji wax dëgg fow daf ci daf lu lu mel. dof ba ciy fo muy dajeeg gaynde nga naan. xam nga début ñun wax dëgg làmb dañ dañ fo parce que nit boo mënee li ngay def da ngay dem ba benn instant boo mais moom jëlul làmb ji def ko def ko def ko benn genre caaxaan foo foo foo kaay daal donc daf ko jël parce que daf ci bëgg dara dafa bëgg ëllëg mu nekk benn roi des arènes te ñun loolu lañ koy ñaanal au man am naa ci moom yaakaar te gëm naa ne alakuli ali tawutaa dina nekk roi des arènes non samedi victoire mooy xew rek loolu moom na ah, du lu ñuy ñuy naam laam-laamee non stade bi moom dina dina dina yëngu moom insha allahu rabbi stade moom dina yëngu moom coach yëpp dinañ ñëw jàpp ci parce que ku jara jàppale la quoi vraiment donc euh, du yomb mu jàpp na tëgg na combat a neex nag na neex dina mel ni ah daxinu lam set dina mel ni daxinu lam set <laughs> ñuy nangu ga ñuy feeñ mais si nekkul loolu ñun duñ ko def man man dama man dama toog man duma entraîné mbër soose nte man ni kolti <laughs> waaw soose ci biir xam rek mais moom rek moo ko waral dem may feeñ télé mais si nekkul dama feeñ télé parce que dama dama bàyyi entraîné mbër mais mom moo tax ma koy liggéey si nekkul lu mu ma won la su ma wonul loolu du lii moo am solo xaalis du dara parce que day jeex soo deewee ñetti per mooy loolu quoi mais moom moom macha allah ndam rek yàlla doon roi des arènes nag. nde ndawluta janne dem mente janne mais nga euh, nga nga Casamance kele sanji lul Dakar a diya ah, bara ko ko ñini dalam ni nga so don kita Casamance le ko bi janne ko do te bulu nde madame do aben bulen kam mum kam fan sutura minna kam baadon makoy ta ka ka fana makoy pour asi Eh, victoire soto mbaɗi manin quoi na kammolyal pakaw sinki ɓere sinkir sabo mba ñanla duwala atamu maka koli bandan kote pakaw marandan mba danla duwala ala nañi dino nañi mumu na eh, ndokomate alias duwala mbaɗi manin ko na kammolyal mba eh, jolal sererol fulol alɓe nanan ñimun di malti parce que na ta fana bita fula dule ika mun do fula du ko e pakaw jawbe kolla kaduwal kada velingara kana ka bemme kadu wala mandat douane euh, yëpp yo ñi ñoo moom na victoire wala ma al douane rek al douane alma sona yàlla albarka waaw barka merci nuyu bi nag kaleelu maa koy nuyu bu day sonn si man tamit waaw waa Réfane waa Marcel xam ku si mel ni xam waaw ñoom ñëpp Ibrahima Riset waaw ak Boukhari waaw barki démb la ma woo envoyé ma xaalis bu bëri ku si mel ni ñoom Faa ñoom ñoom ñoom Amath ñoom ñëpp. diaspora bi ñëpp maa leen di woo dañ ma ñëw diwaanu galas ñëp maa leen di bëggee waaw di leen waaw ak yu pët pët <laughs> kii su ma ko toppee fii la ñuy fanaan <laughs> lii lañ leen fi indiloon fii ci immeuble Kébé àndoon si ak bébé Diène ma ànd seeg Alsaan di nuyu ñëpp di ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ba samedi incha allah ñu xool kuy puus ak kuy paas ak ku dul paas bébé Diène Fourier loolu yomb Bawol production moo ko tëgg Bawol TV moo koy jël mu nekk en direct ci TFM ci samedi.